lépp nag feebar boobu xam nga dafa yàgg feebar mi nag lan la benn microbe la boo xam ne moom ñu tuddee bacille de Hansen bacille de Hansen boobu nag dafa am noo koy atrape ni nga koy atrape mën na nekk nga nuyu ko am lèpre mën na nekk itam si air bi li jot a jàpp mooy incubation am dafa yàgg microbe bi mën na nekk si yow 10 ans ba 15 ans du soog a feeñ ni ñu koy ràññeewee mooy day yàq cër yi yu si mel ni tànk yeeg loxo yi tey jii mu ngi wàññeeku bu baax ci Sénégal. les progrès. jéego yu woyof lañ ci def boo xoolee effort yi nga xam ne nguurug senegal def na ko ci wàllu xeex feebar bi di ngaana wane na ay résultats yu jéggi dayoo. ndax at yi mujj kaay wàññeeku na ci ñiñ saytu ne ngaana jàpp na leen. feebar bu ñuy faj la ndax microbe la. te am na ay antibiotiques yoo xam ne dañu sensible si microbe bi feebar boobu nag bu la delee dafa am nu muy lay feeñoo feeñ bu njëkk bi mooy léeg sa biir der mu bàyyi fa ay taches yoo xam ne dafa xaw a weex tubaab tuddee ko des taches hypochromiques taches yooyu nag der moto bi boo fa demee dafay xool nag taches yooyu amul trouble de la sensibilité c'est-à-dire que vous la un bic wala ñu jam la si ou wala ñu jam la si testé aiguille laal sont yaa souvent des troubles trouble de la sensibilité les microbe lèpre organe bi mu gën a bëgg mooy neer yi bu ci atum 1976 Sénégal dafa taxawaloon ab loi demale ko ci dafa juróom-ñeenti village ngir dugal fa ñi amee feebaru gaana tey jii ñoom mee nga xam ne wér nañu li ñuy sàkk mooy ñu dindi boobu les loi ngir ñu mën a bokk ci collectivité locale yi. feebar bi nekkatu loo xam ne lii daf lay dal rek nga dem de làkkatu fenn comme ki nga xam ne kii daa gis doomu jàngoro bi ci moom parce que léegi ñetti weer dong wala gën gaa gudd six mois juróom-benn weer su ko fajoo rek day daal di wér mu jeex tàkk nekk mbedd bu njëkkoon lañ ko doon wax mais léegi si ku ci faju ba wér même bu fekkente ni am nga ay liggéey sax mën ngaa dellu ci sa village ci sa village d'origine bi nga dëkkoon da ngay daal koo xam ni kii ku la gis bu la ñemee wax sax ni la benn doomu jàngoro mas naa nekk ci yow. naam sax am na ay traitement yu baax at bu jot ci àdduna wërgal këpp dinañu ci gis ñu bëri ñu amee feebaru gaana feebar boobu nag bokk na tey jii si jafe-jafe yi gën a rëy ci yenn dëkk yi nekk ci Afrique Asie ak Amérique latine. organisation bi yor wàllum wér gu yaram mo ngi firndeel ni amna nañ upp ëpp millions million ci aduna wërngël këpp. du ma ne bari na bari na mais y a encore des nouveaux cas de lèpre au Sénégal. dañu do wara jugaat reprendre le traitement de la lèpre au niveau de la base c'est-à-dire que il faut que nous xoolaat que ne lèpre jeexagul amna ay cas yu nekk ba léegi ñu defaat ci ay moyens financiers moyens financiers nak moy def ci xeexaat tax moom nan ko xeexaate woon au début buñ ko defee den si am ay jéego yu bari traitement préventif bi mooy hygiène individuelle ak hygiène collective ndax maladie la boo xam ne day wàllaate donc euh, da ngay sabablu sa wàlli bopp ah raxasu set ak euh, éviter fa nga xam ne daal léeg-léeg fa la lèpre di nekk feebar bi nga xamante ne gëj nañ ko gis yàgg na muy lèpre. waaw malheureusement dafa ñëwaat lenn. mooy lan ci olof. ngaana lañ koy woowee. ngaana la ñuy wax lepre mhm. euh, lèpre. d'habitude dañuy naan ku amul xaalis mooy mooy lepre ñu naan yaakaar les pauvres ñooy am lepre mhm. mais c'est pas le cas ndax lepre am na Afrique mais am na Amérique latine am na Chine aussi. donc euh, du coup du pauvre rek mooy am lepre mhm. léegi malheureusement lepre ñëwaat na Dakar lan moo tax mu ñëwaat dafa mel ni feebar boobu dañ ko fàtte woon. dañ ko fàtte woon la moo tax mu ñëwaat mooy le Sénégal s'est beaucoup focalisé sur le sida le cancer le paludisme laissant en rade les rade lèpre foog ne du ñëwaat parce que mm-hmm. on on était presque à l'éradication mm-hmm. mais malheureusement euh, récemment on a découvert à Touba 50 euh, nouveaux cas de lèpre donc euh, c'est pas c'est pas négligeable euh, bëri na. waaw léegi gis nañ ni lèpre feebar boo xamante ne fàtte woon nañ ko Ghana. Mm-hmm. léegi mën nga ma wax yan signe la ñuy xamee ni kii nii feebar bi mi ngi ci yaramam ndax <laughs> ñaata temps lay durer bañ ba mu fës ñu xam ne kii dafa dafa am dafa gaana waaw malheureusement nag lu tax eh, lèpre metti faj mooy balaa ñu ko yëg si sa yaram c'est presque dañ koy faj dañ koy faj parce que traitement am na benn centre bu nekk hôpital femme buy euh, faj lèpre mais traitement bi dafa dafa gudd mun na dem de 3 à 6 mois ou même plus mais malheureusement euh, monsieur Ba économiste des fois dina la euh, feebaru gaana naka nga ko gisee actualité waaw feebar boo xam ne comme ni ko seen collègue bi waxee éradication bi pratiquement euh, amoon na su ñëwaatee rek loolu moom mooy hygiène moom moo manqué moom moo wàññeeku parce que euh, problème yenn feebar yu bëri feebar yoo xam ne dafa basé wu ci hygiène propreté euh, mhm. ci lekk bi ci cet bi ci sol bi yooyu yëpp c'est important te société aussi am na ay zones yoo xam ne promiscuité daf koy indi. xam nga jege jege nu ñuy dëkkee. lolu day tax euh, cet bi day wàññeeku donc promiscuité bobu dina indi également yenn feebar yoyu man non la ko gisee ça veut dire qu'il faudrait que euh, population yi et lolu ci éducation la bokk sur le plan aussi de la santé c'est-à-dire donc euh, formation population yi pour que ñu gën a mën a nekk ci euh, situation yoo xam ne ay situation ceeb la sur le plan lu ñuy lekkee nu ñuy setee seen yaram seen bopp ak euh, seen yëre yu ñuy sol et cetera. loolu c'est tout à fait instant bi sax euh, état bi politique bu mu tëral pour mm. éviter contamination bi. Mm. loolu la hygiène. loolu laa bëggoon laaj sax. hygiène dafa waaw lèpre dafa nekk maladie boo xam ne c'est contagieuse. c'est contagieux. ah oui c'est une maladie contagieuse mais hygiène bi moko ko mo meun éviter éviter ak lu euh, professeur wax léegi léegi promiscuité promiscuité voilà tout à fait c'est ça donc euh, il faut nit am hygiène hygiène corporelle mhm. ba pare bañ éviter éviter di nuyo yu bëri yi se laver toujours les tant que le docteur bi lu wax mooy tant que ñi ngi laver wu les mains chaque fois di jël loolu def ko habitude saa yo amé jot rek raxasu les lépreux comment ils vivent ici au Sénégal dañ xaw stigmatisés stigmatiser wala nit tout à fait ils ont d'énormes problèmes parce que euh, xam nga après colonisation bi après indépendance lépreux dafa foroon trop Sénégal après nous installons, nous ñu voté benn loi ñuy loi la loi 7603 du 25 mars donc loi pour les lépreux là où law bu baax Sénégal les lépreux les lèpre de Berlin, yi def leen un village. utal ay villages. Mm-hmm. villages jamono bi nak loolu mooy problème mu lépreux yu Sénégal parce que c'est des gens qui sont frustrés réinsertion bu ñu waroon am parce que lèpre wàññeeku na bu baax wàññeeku woon na bu baax ñu ci bëri ci ñoom wér nañ mais beddi ber bu ñu leen ber moom la ñu ñoom ci reportage bi ma def sax ber bi ñu leen ber loolu ñuy kaas que eux ce qui demandent mooy ñu dem politique de réinsertion parce que nit ñi dinañ pointer du doigt

bu nekkee dañ leen di beber di euh, pour ñu utal leen yenn condition de vie yi nga xamante ne pour ñu jàppale mais le fait que ñuy yalwaan di côtoyer yenn nit ñi d'autant plus que nga ne c'est une maladie contagieuse est-ce que du problème. mais parce que ils n'ont pas le choix ils sont laissés à eux-mêmes xam nga dañ leen avant dañ leen beroon. Mm-hmm. mais légui dañ leen abandonné si si dañ leen beroon mais après amoon autant en 1976 jusqu'en 1900 en 1976 après 5 10 ans après amoon une politique politique d'accompagnement c'est-à-dire que état bi dina doon jox euh, de temps en temps a donné des subvention bu ndaw même fekkee a donné des subvention à ndaw mais maintenant que ñu ñu jékki-jékki accentuer aussi yeneen fièvre, yu si mel ni sida yu si mel ni paludisme fait pour les lèpre lèpre dañ le Sénégal alors que voilà donc comme que amuñu amatuñu ben soutien ils sont obligés de sortir de leur coin Bien si mbedd bi c'est dommage mais bon c'est un peu risqué. c'est voilà c'est ça c'est toujours ça. Euh, ñu ngi lay jaajëfal Louise. maa ngi leen di jaajëfal leen di remercier ci sa santé bi ñu la wax rek à la semaine prochaine. d'accord accord semaine prochaine ñu ñëwaat indi bonne maladie et puis essayer de la population bi rek. ci noonu tamit lay tàggoo ki nga xamante ne mooy suñu invité ñu ngi lay aussi au Ba. maa ngi di remercier ci invitation bi. dañuy jàll seen euh, merci beaucoup à vous. dañuy jàll directement ci li nga xamante ne cuisine